Optima ñëpp ci gis seen bopp. saa yoo toogee saa wet nii rek am nga loo bëgg wax wala loo bëgg di jënd. yaay xam nga ami. ah ami ami mel na mel na mel ami. lu ko jot la xew. faaw ma takk booy bi. yaay nga am goro bu am diine. ak ah, gaaw. mais Sidi laay gaa defaral ngeen ma sama kër mais fii du grand place tamit. yow yaay magu Mame Balla. magam laa kay. saa yi Mame Balla rey na la ba nga dee. luy loolu kër gi kii moo ko. maanaam dañu dégg ci nit ñi ñu ni. li sa doom ji feebar feebaru xel moo tax nga jël njéem may ko. te damaa mën a def benn fii ñu def ah yow xam nga ne man léeg fi may fël la xam nga ne foofu dof du fa fël. Babe. Tu peux m'ouvrir la porte